Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. ma leen waaye yàlla moo ko moom yàlla moo ko moom euh, jëlee naa ci ku ko jigéen lool mu wax ni li muy man mën a bay ca xel koom yaag yeneen yaag yeneen ya mësuta lekk mbayum toolam. kon nit war naa laaj loolu mu doon bay te bu bari fu mu ko doon jëmale xanaa ci jaamu yàlla waaw lan la doon bay suuf yanke boobu dafa góor àll bu yaatu ñu tuddee ko xel koom ñu ni dafay bay lu mu fay bay gerte ak duur déedéet dafa doon bay alquran ak sunna alquran dafa doon bay la fa ci alquran ñu góob ko fa ci kanamam kenn xamul nu mu toll am na benn journal bu génne ñaari junni yu toxal ci ñoo xam ne ku ci ne bind nga kaaminu alxuraan teg ko ci loxol Cheikh Saliou laata moo génn ci biir tool boobu kon tool boobu alxuraan lañ fa doon bay lañ fa doon bay tey mi ngi fi ba léegi waaye dugub ja gisatoo ko gerte ga gisatoo ko kon la ngay gis ba léegi loolu lañ ko doon bay muy continuer di meññ di wéy te moo di alxuraan liggéeyal alquran moo ko na taxoon na jóg ci loolu la doon liggéey ñamu yar itam loolu la leen doon yare dërëm boo dégg ne am na ko boo yëgee boo yëgul alquran la ko fa baal mbaa lu jëm ci alquran mbaa lu jëm ci alquran mas naa koo wax sëriñ Seex moom Cheikh Saalix Mbakke ci jumaa yu bari yi muy tabax ma ne ko dara waralu ko ludul dégg koo dégg sëriñ Saaliwu da koo dégg te nag am naa lu ma ci xam ndax xawoon naa koo jege ay jamono dégg gi ñu ko dégg xamal ni lii moo doonoon mébétam dara du woon dencul woon benn dërëm lu dul ni daf ko waajale woon léegi yàlla nga jël loola say woowa continuer ko di ko taxawale néegu yàlla yi te di ko def te yàlla tax mooy ixlaas ja tabax jàkka yàlla tax mënta weesu jàkka joo xam ne nii di nga ko naan tabax ko ba mu àgg ba ñu di ko jullee te doo xam nu jàkka ja mel kon sa yoon néewu doo xam jilimaan ja nu muy tudd sa yoon néew ja koñ ba nga ko tabaxal ñoo koy jullee ñooy tànn seen jilimaan sa yoon néew ja te loolu doy naa ci misaal mu ma jege lool jàkka ji mu tabax sama mbooru kër bokk naa ci ñi doon teg première pierre ba ba mu jeexee bañ di ko jullee bokk naa ci ñi ko doon jullee ba ñuy wut jilimaan bokk naa ñi mu proposé pour ñu wutal ko imaam ba ñu wutee jilimaan julli nañ ko lu man at mu soog faa ñëw te ñëw fa ngir jàkka kon loolu mooy tabax te yàlla tax te jàpp naa ne yeneen jàkka yëpp it noonu la ko defee loolu dégg la bu mu déggee ci Maulana Soufiane bu mag bii ngeen tuddee bis bi di Cheikh Saliou Mbacké la mu doon def daf ko doon def te yàlla gépp tax xoolu ci koo xam ne nii yaa ngi koy yëg wala yaa ngi ko ciy tagg wala yaa ngi ko ciy def lenn borom bi képp la doon seedeel lim doon def te loolu mooy jëfi Soufiane loolu moo di ali ihsaan mooy li ngay def doo ci génnee ko aw tagg doo ci daw aw ŋàññi te di ko wéel ba mu àgg fa mu jëm lu mu liggéey alquran a am na lu moo ma ko nettali boppam moom Cheikh Saliou Mbacké dañoo toog benn bis di waxtaan ci alquran ak màggaayu alquran ak li ñu war a liggéeyal alquran mu benn liggéey mu liggéey bu dul lu mu def alquran a tax bu bayee alquran ma daal di dégg kon xel koom keroog bu taalifee téere alquran mu daal di firi loolu moom ndax daf ni keroog jàpp naa ni waxtaan woowu euh, ñi ko fekkee sëriñ Modou Xabaan moom sëriñ Fadilu yu mi ngi toog mu ni nu xasiida yii muy def dafa am noon boo xam ni du jubóog moom mukk du maroo moom na nga wax baatu maro bi waaye dama bëgg mu gën noo jege ndax sama classe gi dégguñu walal am na noon boo xam ne du maroog moom mukk mooy du jubóog moom te bëgguta jubóog moom ñu ni noon bi ban la mu ni mooy iblis iblis moomu nag taalif yii muy taalif mooy bal yi mu koy sànni ba mu sori ko mu ñëw ci téeréem yàlla daa dafay tari biit yuy tekki loolu yu bari ay lam yan uni mësumaa gis nit ku mokkale ab yaat yu askanoo noonu baree noonu ci benn jitaay te bokkuñu xasiida yu ñu nekk nga di ko tare ba mel ni ñoo bokk benn xasiida bu ñu nekk loolu li ma yéem la bokk waaye laa xar ndax ñoo doon mbuusu xam-xam ñooy mbuusu sekkere xam-xam bi nga xam ne nii lii ëmboon ci seenu dënn nit mënu koo xam du benn doomu Serigne Touba boo xam ne nii dina fàtte lenn lu mu xam-xam na ko sëñ Abdou Lahad da ko cee mas a wax rek waaye ñoom ñëpp la sëñ Abdou Lahad dafa mas wax benn doomam sunu Serigne Serigne naa maa ngi teew euh, yàlla dogal am lu mu ko doon fàttali te la mu ko doon fàttali aju ci man sax far ba mu waxee ba àggal mu ni ko fàttewuma ko fekk dañuy xamale ni ko ndax xam nga kii damaa bëggoon nga xama xamanteeg moom euh, kii sama xarit la noo bokk nekk kër Serigne Souaïbou ma bëgg nga xàmmi ko sëñ Abdoulahat ni ma xanaa du yaa ma joxoon waje daaw jéeg ba nga àndeek Alaaji Seex Ture bu ngin gi néew ma ne ko waaw mu ni fàttewu ma ko bi nu génnee sëriñ seexu naa ni ma bu ma xamoon ni jaaroon ngeen foofu du ko wax ndax mas naa koy fàttali mu ni ma seexu ba ma deem Abdoulahat ak léegi mokk lu fi lu ma fàtte xaw ma fi ku ma fàtte lu ma mokkaloon fàttewu ko ku ma xamoo nit fàttewuma la te loolu firnde ji waxoon na ko ak cheikh abdul wahab moom cheikh ibrahima Diouf al masari dafa am benn bis cheikh ibra cheikh abdul wahab di ko fàttali woyu sëriñ ibrahima Diop mel ni ku koy wax ni ko ndax xam nga ko mu ne ko fii ma toog mokkal naa ci ñetti junniy bayit waaye kooku ku ko laajoon woyu sëriñ Touba fu muy demee kon laa xarwa bu jëlee lam yan on yi mën nu cee taril ab téere ku mel ni moom loolu moo doonoon seen jikko dara waralu ko lu du xol bu sell xol bu sell day doon mémoire boo xam ni du fees ndax lenn rek lay enregistré mémoire si Cheikh Saliou Mbacké lenn lay enregistré mooy njub waaye leneen du ci dugg gis nga nun ñu sunu bopp yi fees dell ak yeneen koo ci waxal lenn bala moo génn baas bi fàtte ko ngir mémoire bi daa fees day gaaw a yàbbi li mu xamoon li mu xam ci bon nag moo ci ëpp yooyu moom day effacer mimwaar ñoom nag dara lu bon daa nekkul seen bopp moo tax lu ñu xamoon duñ ko fàtte yal nañu yàlla fayal ñooñu noo ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant bu baax a baax di sant sayidul muhaadir ak eh, baadul ixwa alladina tadaxalu fi hada al mawdu wa jasakum allahu an al islami wa an al ummati al xayra al kasira al jamma bi idnillahi taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh